Jidda Caare Kaw bokk ci aussi ci famille wu El Hadj Fa Diallo Picc comme ni ñu ko xamee rek mm-hmm. mu nekkoon koo xam ne bokkoon na ci ñu sant caaro yi mm-hmm. bokk nañ aussi ci ñu njëkk a nekk euh, opéra ki entreprise ñu njëkk am entreprise ci Sénégal ak Afrique de mm-hmm. ñu xamoon ko ci liggéey mais daawul politique mu nekk nag sama waajur mu juddoo caaro yi màggee caaro yi nekk acteur communautaire lu tolloog fu tolloog presque fanweeri at

ba Sénégal tey jii ku tudd politique paysage politique ji de caaxaan ko kenn mënu ko tudd te bañ faa tudd sa tur lan moo la dugal si politique monsieur Diallo. bon mën naa ne yàgg naa dugg ci politique parce que euh, li ma gën a dañ ma koy tooñee sax ne ma yow sa politique yëpp armée la dafa am benn grand bu tudd grand lamp maa koy nuyu de passage bi nga nekk ji de kaw. Mhm. jamono yi nga xam ne ay xale lañu dañ doon bëgg dañ doon fréquenter di bay armée yi. Mhm. comme ni ko ma ngi doon defee. waaye bu ñu bëggoon euh, ay brouette wala ay matériel rek dañ leen wax dem leen mairie mhm. jamono jooju Sidi Sarr mooy maire mhm. mais suñu demoon rek dañ ñu wax ni duñ ñu duñ ñu faale noonu donte li ñu doon def lu am solo la mhm. parce que dara ëppul solo ngay taxaw bërëb yu mel ni cimetière yi wala bërëb jaamukaay yàlla yi mais suñu demoon duñ ñu jox ba ñu ne samedi ci ngoon duñu am solution léegi bu ñu gisoon grand làmp rek dimanche matin suba teel këram la ñu ñëw mu ut ay brouette jox ñu ñu dem liggéey li ñu bëgg a liggéey mm-hmm. ñu dem ba mujj bi ñu ne ñun ñii li ñu ëppalee ci bagage yi mooy parce que dañoo def politique ñun def ñu politique mm-hmm. ñi ànd ak maire ñoo téye bagage yi mm-hmm. parce que jàpp nañ ñun nanguwuñu ànd ak ñoom parce que gëmuñu li ñu def kon nañu jéem a xool nan la ñu taxawee loolu bokk na ci fekkoon na man ma militaire PDS lu yàgg mais du ma ci woon acteur comme comme nit ñëpp sympathisant rek laa woon ci lañ dugg PDS taxaw imposer suñu bop ba jàpp ne un jour dañu yor liñu yor ñom manam yoru mairie wala bok ci njege maire booba lu bëgg def suñu gox rek ñu mën ko def ci anam bo xamné ne la gëna a baaxee la gëna a mais loolu bokk na ci lu gën a benen bi mooy dañu nekkoon ñoo xamné aussi dañu bëggoon président Abdoulaye Wade parce que ku doon fréquenté sama waajur bu góor la El Hadj ci me Amadou Sall bi nga xamné mo moo doon porte parole nek avocat famille libéral bi mu nekkoon sama tournoo papa momit bokku na ci di tax bu bëgg def politique waye liñ ci ëppal solo rek moy comme le wax moy demoon nañ ba ben instant tabaxal nañ sax suñu poste santé bo xamné ne di di dacaare kaw moy deuxième poste bi bañu def ma fa président la toll 10 ans yooyu moo ñu poussé en def politique bi président Macky Sall di génn ci 2008 ñu génn and ak moom bokk ci ñu taxawal

16 bi nga tok la ñu teggi teg keneen ci bo xamné ne seen doom la boobaa dañu am ci mu yaakaar ba lu ñu xaar ci moom mu def ko waaw monsieur Diallo d'après li nga fi jot wax ni sa mun naa wax ni si côté euh, commune bu Djiddah Thiaroye Kao avec euh, monsieur Cheikh Dieng mais lan moo tax euh, bu ngeen battre campagne de Cheikh Dieng dañu leen avec bi ngeen fi jot a wax yëpp ne dañu ngeen ko si bureau de vote dañu ko si si centre de vote je suis obligé de euh, maire de la commune de Guédé le problème bi a problème. xam une élection locale élection locale élection élection locale 2014 je bu 2014 xam local locale choix la choisir mhm. dem mhm. président battre campagne élection locale. Électoral, électoral, président fal population bi am bi am ci président Abdoulaye japp ni vision président Adam, président am ci askanam dina vision mais malheureusement bo élection yi mu perte ko parce que maire fay sa gardien armé. en tant que musulman en tant que Talib, yow ya wara jël def ko yow jël église def ko mais tey boo demee Jidda Caaroy kaw mën nga laaj imaam yi association des imams mi ngi fa ñun en tant que conseil dañu xayma huit million di ko jàppale les imams mais tey ñeenti at a ngi nii imaam yi gisuñu xaalis bi et pourtant moom yenn imaam ci moom ñu ngi koy répète di ko lekk ñu koy émargé su génnee trésor ñu jël ko def ci ci leneen neex et pourtant association baa nga fi amul xaalis bi association yooyu ñoo ko sanctionné église bi daf ko sanctionné ñi nga xam ne ay jullit lañu mu waroon yër bérébu armée yi nga xam ne jullit lañ fay denc amuñu lu leen neex ci yore ñoom dañ koy sanctionné le mouvement nawetaan mën ngeen jël seen micro ngeen dem ji da caare ko les président d'ASC ngeen laaj leen ban at na leen Cheikh Dieng mu jël subventionné su ma juumul benn yoon la et pourtant at bu ne ñu génnee cëru ndaw ñi nekkat bu trésor amee xaalis ci recouvrement yi ñu am nañu génnee xaalis ndaw ñi jagleel leen ko. mais fan lay def xaalis boobu. loolu moom ngeen koy laaj peut mais ñun ñu mën a xam. ba ngeen jëlee seen micro ngeen dem ci Déthiaroye Kaw. Mm-hmm. génne ASC yi. Mm-hmm. man de at bu nekk danaa subventionné les ASC naa leen jàppale ci la ma mën te keroog bu ma fay dem ñu ne xamul ma ne mala ñetti at a ngi nii xam nga ñeenti at Cheikh Dieng joxuñu subvention. mais monsieur Diallo daal dagg nga baal ma àq parce que est-ce que yéen vous n'êtes pas fautif de ce côté boobu parce que bu ngeen déggee nga ne combien d'années Cheikh Dieng mu ngi toog euh, subvention ASC yi joxu leen ko te yéen ngeen nekk association nekk des acteurs politiques dëkk Djidah Thiaroye ko.

Euh, ban ASC laa mujj dem di leen subventionné xamal nañ ma ni Cheikh Dieng subventionné wuñu comme ni ñu ko defee du bu ne maa ngi waaj a dem yeggal ñetti ASC ma dese Guney Penc jàmbaar Mesere ak Daaru Laay et pourtant ak ak ñetti maar et pourtant ñoom ñëpp waxuma ma li ma leen defal waaye maire moo moo waroon génnee gafaga askan wi ñu xayma ne ndaw ñi ci lañ bokk mu génnee jox leen ko mais su leen di subventionné ak su leen di subventionné du sama kàddu lañ koy justifier yéen en tant que journaliste dafa am rôle bu ngeen ci war a jouer yéen da ngeen war a dem sol seen dàll dem ci président d'ASC ngeen dem ci président yi fa nekk nga ne leen est-ce que maire Cheikh Dieng mi ngi leen jox subvention waaw wala déet. loolu benn la loolu loolu la. Mhm. ñaareel bi nga xam nga laaj aussi bu fekkente ne dem nañ final est-ce que maire dina ñëw toog ci final ba jëmmal leen li ñu def waaw wala déet ñoom danañ la ko wax waa mi dem nañ ba final dajeeg nek bu yëmbal maire yu yëmbal ànd wa yëmbal yëpp ñëw ci stade ba mais gisunu suñu maire Cheikh Dieng. Ah lool waaw parce que nit ko xam say ya nga dëkk Marissa ak sa wara say doom so xey ya nga dem permanence PDS national toog fa parce que sa parti mo la ñor mëno xam jafé jafé ji ci ara kaw lool aussi nit ñi ci wara jangat du du sama cadre yi moy folli maire du sama cadre yi moy fal maire hmm. dadi en tant conseil municipal da ci am ci li ñu def suñu cër la moo ñu leeral askan wi. ñaar dërëm bi nga xam ne ñu ngi koy def ci recouvrement di ko dajale. trésor jël ko. ëllëg dañuy justifier fan lañ ko def. mën naa la leeral ni ASC jotuñu subvention. lu tolloog ay at nii lu mel ni association des imams mu ngi dem laaj leen jotuñu subvention. lu mel ni bàjjanu gox yi at bu ne ma subventionné leen chaque poste de santé cent mille francs ñoom it mosuñu jot subvention ci maire. ah bon relais communautaire dama ne subventionné mosuñu jot subvention ci maire. loolu mën naa ne Pikine TV su fekkee ne dem ngeen jënd caara kaw. war ngeen mën dem seeti la présidente Aïda Diouf génne ko yow mi jité daago daan ak jida ko jibaa ji nga est-ce que maire Cheikh meus na la jox subvention wa wala déet ki nga xamné mom moy mooy monsieur Dia te district bu Pikine reconnaître ko mu jité daago daan ak jida ko nek nekk ku jiite relais communautaire ngeen poser ko la même question ñi nga xamné aussi moy ñom Pam ñay nek président zone 3 bu jida caare ko ak Samba Diop bu jida caare ko bu caare gar zone zone 5 ngeen lañ leen est-ce que maire Cheikh Dieng mi ngi leen

dañu am jafe couper seen ndox couper seen courant mm-hmm. maire de leen le gardien école mm-hmm. maire du leen jàppale ci cré mm-hmm. du leen ci yi donc loolu man su koy wax du saxe may wax may souvent le journaliste moom rek comme arbitre te arbitrage journaliste parce que dina dem ak caméraman dina dina ko permettre lu mu sur la terre. ba ci ki nga xam ne mooy gardien armée bi di ngeen ko fekk armée ya mm-hmm. nga ne ko dañoo bëgg nga génnee ñu sa contrat bi nga xam ne mm-hmm. moom la la mairie di fay mm-hmm. wala bu la mairie fay nga wax ñu kan moo lay fay loolu yéen yéen ci mën a dimbali ba tax na du ma bëgg sori ci débat boobu dégg naa Youssou mu wax question bu am solo sànq mu ne benn bokk yaakaar jënd caare kaw nan lañu ñu fas yéene demee ci élection yi beneen bi mooy su ma juul mooy bu président newee malal la wala diw wala diw la nan lañ ci nit ñi di ap na apprécier mm-hmm. man mënu wax ci yeneen candidat yi mm-hmm. man xam lu ma ci mën a wax mm-hmm. ñun waa APR ak waa Bokk à part élection 2014 ñoo gagné tous les élections APR pair Bokk Yaakaar gagné parti pré coalition la élection législative coalition soppi Cheikh Dieng la ñu investir ñoo ko gagné. mais est-ce xaaral ma ñëw coalition ñeneen. Mm-hmm. bu président Modou Gueye. ñoo investir woon Modou Gueye ñoo ko gagné. Mm-hmm. tey ñëw na si ñun. suñu camarade de coalition la léegi ñu la féetee. Mm-hmm. bu ñu demee gagné élection yëpp. lépp dañ ko def ci consensus ak waxtaan ànd ànd nawle ak suñu allié. wax naa ko ci benn télé barki dem ñu ne ma allié yi bu ñu nekkoon candidat est-ce que di ngeen ko nangu mais ñun. bu ñu demee élection nekkul ne tey ji Cheikh Dieng bu ñëwoon ci ñun far ci ñun rek mhm. nekkul ne day ñëw rek pour jiite ñu nekkul ne Gaynde Badiane bu ñëwee ci ñun rek dafa war a ñëw rek ñu ne ko jiital ñu mhm. wala Modou yi dafa ñëw ci ñun ñu ne ko jiital déedéet ku ñëw ci ñun rek dañoo ànd ànd nawle mhm. parce que loolu moo ñu mën a may ndam ci bi nga xam ne ànd ñoom ñun ba fii bi ñu àndeek ak ñun ba tax na liñ ci kiñ jiite bi mooy président de la république man asek yi ma concerné am naa chance investir na ma ci élection législative yi paase ñu am ndam ñu am ndam ñu rëy ñu fédéré ñëpp nekk benn ñu gañe jàpp naa ni noonu ñu ma investir woon jàpp ni am na ñu ñu investir woon ñu perte te du seen yaafus du dara xëy peut yàlla moo def loolu bi ñu investir malal ak ñoom paas sàmmandoo yaa ko yàlla yërëm ak pas ma fexe nañ ba ñëpp nekk benn outil l'essentiel ñu am ndam lu rëy mhm. man jàpp naa ni ëllëg danañ ma investir ñu jaar fi ñu jaaroon

di ma gis man loolu laay mel du politique moo dama koy def loolu laa xam dañuy jéem a nekk jullit yu baax jëm a nekk aussi ay responsable yoo xam ne yu modèle yoo xam ne loolu la ñu xaar ci politique mhm. nit ñi nekk nit ñoo xam ne dañu yëglante dañu demlante te politique taxul ngeen di ànd or politique bi am na ñu nekkoon dans la coalition nekkatuñ ci coalition ñu opposition la ñu seq woon démb lañ seq ba tey ndax suñu relation seen relation ak Macky Sall sama néew ci mhm. mais sama relation ñoom laay sàmm mhm. donc loolu laa lay mën a wax ci loolu boobu suba ku président Macky Sall mën a tànn xam naa ne ñëpp danañ nekk benn jàppale ko ba ëllëg mu amal na am ndam ndam li nekk na ma jënd caare kaw

ñun yalla dimbal nañu ba ñu ko créé ba tey mm. mosuñu tass te ñu ngi am ay ndam waye bu dé dañu am ay division diko régler réglé mais c'est mieux mo gën ñi nga xamné dañu jël rek tass mais tas a ngi xeeñ si yéen de. mais mais ñun lu ñu yag na politique. bu mm. buuxante na. Mm. APR benn bu ko Yaakaar coalition mak mag la macha allah. Mm-hmm. c' très normal mu am ay leader yu bari bëri ma ap doole ma mën ma nangam lolu lamb la mais bu ñu ciblé ñepp dañu taxaw ñi mëna and ñoy and nek mm-hmm. nekk autour de l'essentiel mm-hmm. mais lamb ju ubbee da ngay gis gars yi dañuy taxaw wane seen bopp seen yaramay tàng c'est normal mhm. lii day wane ni victoire la élection député yi nii la woon ku ne di fëgg sën maa mën dëkk bi maa mën a gagné élection yi mais bi ñu tànnee malal ñëpp dañ ko jàppale bu gagné donc loolu lañ ko xalaatee noonu dañ jàpp ni Benno Bokk Yaakaar dañoo taxaw taxawaayu leader taxaw taxawaayu parti leader coalition leader mhm. wane ni pour le développement de la commune de Djiddah Thiaroye Kaw mhm. dafa weesu affaire ay Cheikh ay nangam dafa nekk dafa dafa war a nekk boo xam ne tey xoolal tey yaay booy dañ koy dégg fu bëri man li ma gën a métti te duñ ko boole suñu programme di ci insé aussi am nañu deux postes de santé ji de Thiaroye Kaw poste de santé bu nekk danañ fa def bureau état civil mhm. imagine xale bu jàng ba war a def CM2 war a def entrée en sixième wala def BFM wala mënoon def bac ñun la amoo kayit juddu mais xale boobu yaa ngi yaa ngi yàq avenir am ndax lan déclaré wuñ ko yu mel noonu dañ ko jël en compte dañoo jàpp ne lii warutul mën a fenn ci Sénégal rawatina ji de caaree kaw ñaata xale la seen jàng yàqu parce que déclaré wuñ leen donc yooyu ñuy ñàkkal solo dafay joué ci avenir bu xale bi ba tax na ñun dañ ne xale bu nekk sa biir sa si poste bi nga xam ne moom la nekk dañ fa am bureau boo xam ne day am bureau état civil ba ëllëg xale bu juddu rek balaa muy def waxtu ñu déclaré la nga am sa kayit nga xam ne après ñoom dañ toppatoo loolu ba xale bi kayitam dootul dépendre ci pam ak yaayam ndax jamono mënul ndab wala sa papa dund wala sa yaay dund wala sa amaana da ngeen nekk situation boo xam ne du ngeen mën a tal loolu sa yaay nekk ci yeneen affaire ay nit judd nañu après génnaandoo seen doom màgg kenn du ko toppatoo donc donc yooyu la ñu bàyyi xel ba nga xam ne vraiment dañu bëgg xale bu juddoo ci rek ci biir poste santé bi nga am sa këyit état civil bu ko defee ëllëg doo mën a am jafe-jafe yooyu mhm. beneen yi mooy nit ñi yooyu lañ gën a tal da ngay gis couverture maladie universelle mhm. amul di da caare ko fu bëri da ngay gis ñu ne waa dañuy yalwaanal diw def feebar dañoo bëgg dajale di xaalisu feebar yooyu dafa war a xew yi dañoo bëgg commune ku nekk si si Diass ku chaque citoyen bu nekk di Dakar kaw nga am sa carnet couverture maladie universelle comme ni ko président la République waxee su la yàlla nattoo nga feebar nga mën a faju ci anam bu mu gën a yomb anam bu mu mën a baaxee programme yooyu am na fi Youssou wax na ko sànq mu nekk loo xam ne incha allah bu tabaski bi bu tabax bu màggal gi passé si jàmm incha allah danañ def benn conférence de presse lancer projet bi di ci woo Pikine TV di ci woo. organes yi nekk ci Pikine yëpp ñëpp jàpp ci parce que combat la boo xam ne daf ñu ñor dañoo bëgg district de Pikine nekk hôpital niveau un niveau deux hôpi district de Pikine jóge fu mu nekk dem ci beneen étape parce que ku ne gis na ni le président Macky Sall li mu def à à def ko a à Kédougou ci hôpital def ko à à Fouta ci hôpital. président Macky Sall euh, monsieur fi mu nekk comme yow xam naa ni moom dangaa bokk si parti boobu noo def da nga da nga. non man fi mu ne waxuma waxu parti waxu waxu waxu waxu hôpital wax. waaw li am Touba. am mm-hmm. Kaffrine mm-hmm. am Kédougou. dama jàpp ni war na mën a amaat Pikine. mais électorat bi Pikine di jox di dugal si euh, euh, élection bu jotee président Macky Sall bu laata mu doon gëstu mun naa wax ne ay yeneen région yooyu ak yeneen yeneen dëkk-dëkkaat yooyu waroon na mun a gëstu bu baax euh, département bu Pikine. loolu dëgg la loolu dëgg la gis nga gis bu ko xool foofu. ay Pikine dafa bok ci priorité yi mm-hmm. mais tay xam nga lu mo gën a suñu priorité mm-hmm. la route des ñay jëm Tari Diallo jëm Kër Massar mm-hmm. priorité la district de Sande Dominique mom la lay wax sanga dagg ma dañoo bëgg mëne ay combat mu nekk hôpital niveau 2 mu am directeur baña a am ay comité CDS yu demee noonu non té aussi di lancer di di rendre hommage de passage suñu frère Samba Amadou Sarr mi génn àdduna yàggul nekkoon président comité boobu mu nekkon yéeneem aussi fexé di hôpital bi jëm ci beneen dimension te mën na nekk tey boo ñuy àddi desaare kaw poste santé ex déggoo imam Kayre mais tey Eva Marie Coll dafa ñëw en tant que ministre de la santé ñu wax ko ne ñun dañoo bëgg fii nii nekk district de santé mu ne mën na nekk en tant que ministre mu ne su fekkente ni am ngeen fu médecin bi di fanaan logement sage-femme su ngeen ko modifié mu nekk médecin bi dafa fanaan dinañ ko mën a def loolu ça di dire que loolu mën na nekk ñun ci loolu la ñu bëgg a dox allah danañ mën a

bëgg incha allah rek après màggal gi danañ ko lancé dañ ci ci invité mhm. bëgg vraiment li nga xam ne mooy Dominique nekkaat li nga xam ne mooy hôpital niveau 2 mënul nekk mënul ñàkk parce que loolu mooy yoon mhm. parce que population boo xam ne ëpp na 2 millions habitants mhm. te aussi boo xoolee côté transport ñaata autoroute ñoo fi jaar ñaata VDN ñoo fi jaar ak yeneen ak yeneen donc loolu ak ñaata circulation bi boo maraîcher na fi ak yeneen ak yeneen c'est vrai hôpital mais au moins 2 millions habitants fu mu nekk ci loi bi au au moins trois ou quatre hôpitaux donc vous avez hôpital que war au moins deux hôpital niveau pour permettre population ça c'est sûr mais monsieur Diallo est-ce que projet bu avez mel euh, pour euh, structure de l'hôpital Dominique est-ce que vous avez ak euh, maire wàllu bobu lu si mel ni maire Pikine Ouest euh, maire Pikine Nord Isaaxa Diop euh, maire euh, Pikine Nord Amadou diara est-ce que waxtaan nga si ak yoy xam nga ñun ñun duñ def taf yëngal tous les maires bo leen ñun la après magal parce que mm-hmm. dañu bëgg yonal dañu bëgg dem seet envoyer ay courrier tous les 16 maires. Mm-hmm. légui sax am nañu jëm Kër massa 12 maires yi fi dess mm-hmm. dañ leen bëgg a saisir officiellement. courrier. xamal leen ne lii mooy suñu projet dañoo bëgg district de santé Dominique nekkaat li nga xam ne moom mooy hôpital niveau 2 centre de santé ko poste santé bi li nga xam ne moom mooy district de santé pour mën a may doole hôpital boobu li nga xam ne aussi moo dem Kër Massar te Pikine moom mooy poste santé ndiw indiwaat bu ko leer ñu def dóomee moom leer tous les danañ jox seen courrier tous les députés danañ jox seen courrier ñi nga xam ne mooy au conseil conseil économique ñëpp ante yëpp danañ jox seen courrier bu ko defee bu ñu paree danañ def benn conférence de presse leeral askan waa Pikine leeral opinion bi projet bi kat lii la wund Pikine moo toll foo xam ne wartoo mën a ñëw ñu ne la da ngay teggi op camp bi teggi teer bi jaar fii jaar fale pour mën a yegg hôpital Pikine pour egg mën a yegg ci kan bi et pourtant à daagu daal bu ñu bu hôpital Dominique mel ni mu war a mel nañu wax ne dëgg tey jii soxlawul nit di dem Dakar soxlawul nit di dem ba hôpital kan caare mhm. parce que lu ci bëri euh, dafa enclavé xaw enclavé wu vraiment vraiment projet Inch'Allah, aussi saisir tous les maires saisir le préfet saisir les saisir les de la santé mm-hmm. rencontrer le maire de la ville. Mm-hmm. rencontrer le médecin chef rencontrer même le ministre de la santé. Mm-hmm. Faire vraiment ce que je veux. qui parce que je que priorité avons Dominique nit la man ma nit la dama faju war a ñibbi sama kër awma fu ma dem parce que ambulance doyul Pikine dafa war a weesu ñu naan amul ambulance yu doy. wala nga war def benn analyse ñu orienté la demal beneen hôpital. et fii bu nekkee hôpital niveau 2 soxlawul ngay def analyse nee naa la depuis ba fi Pape Sagna may nekkee l'ancien maire avant le maire Abdoulaye Thimbo am na bloc opératoire mais pour mu am euh, spécialiste boobu day fekk mu am niveau boobu problème de statut la ñu am mm-hmm. mais bu ñu amul problème chaque jour ku fi ñëw ñu orienté la transport bi ngay def ñëpp amuñu ko. ku feebar ba xamoon nu mu ñëwee ba jot def ay premiers soins nga ñëwaat encore gane ko da ngay demaat Roi Baudouin wala da ngay dem hôpital Piquet wala da ngay dem Dakar. Mm-hmm. pour mën a fi analyse yooyu si amul benn sens. dañuy ko rafetee vraiment ñoom hôpital bu mucc ayib boo xam ni soxlawul ngay génn sax pharmacie dem feneen. Mm-hmm. ci biir hôpital bi war na mën a am lépp lu fa war a nekk. Mm-hmm. ba nga xam ne comme bi am Touba. comme bi am Kaffrine comme bi am euh, Kédougou xam ne day am am bloc opératoire en pédiatrie amul dara. Mhm. fi pédiatrie bi am ci bloc bien, on spécialiste. Mhm. amul spécialiste boo xam ne xale rek lañ toppatoo amu fi mën nañ ko am suba suba waaye day fekk moom statut hôpital niveau 2. donc loolu mooy projet bi xam naa incha allah dinañ ci ñëwaat ci lu gën a pour permettre pour yi mën a bénéficier hôpital Inch'Allah, M. monsieur Diallo vraiment kàddu bi leer na ma. émission euh, nous avons le plaisir euh, recevoir euh, ici si plateau bi comme je vous l'avais dit monsieur Malal Diallo nekk conseiller

amul dara lu ñu changer ci bi ñuy ba baa baatu askan pour président Macky Sall nekk président ñun ñoo doon wër naan bu ngeen falé président Macky Sall danañ am environnement bu baax danañ am ay sécurité ci ay làmp danañ am dundu wàññeeku danañ am hôpital yu baax danañ am ay tëri caro danañ am couverture maladie universelle danañ am bourse familiale bi mu gañee ba amaat deuxième mandat tay li ñu dimbali ngir loolu gën a yemb ñu fexe tëli caro nekk fu bëri ci ay Djida Thiaroye Kaw mhm. loo xam ne sans état am nañu ay partenaires yoo xam ne tey tey tey suñu nekkoon maire ñu ne ci bopp askan wi danañ signé ay convention yu ñu permettre mhm. tëli karo fu bëri ci mbedd yi mu war a am dana fa am mhm. ndax Djida Thiaroye Kaw xam nañ ne grandes artères xam nañ mbedd yu mag yi xam nañ mbedd yi nga xam ne ñu fa la ñu jaar ñu dem marché ñu dem école te mbedd yooyu tey ay tëli karo amu fa te war a mën a am nit kuy faatu ngay mel ci ay état du Sénégal def ko war nañ ko mën a def fu bëri ci Djidda Thiaroye Kaw beneen bi mooy gis nga Djidda Thiaroye Kaw dafa tumuranke ci lu mel ni ay infrastructure moderne am nañ ay partenaires yoo xam ne signé nañu ay convention yoo xam ne tey suñu nekkoon maire day gën a yomb muy terrain basket boo xam ne dañu bëgg a réfectionner centre dañu bëgg def lu mel ni terrain minam ay terrain synthétique waa minam indi nañ partenaire yóbbu ko ci maire bi maire yi bloqué leen parce que jàpp na ni ñii kat voté luñ ko woon te wax na leen ko ci biir bureau àndu leen nag man du ma def loolu ñoom ñoo ma ko nettali xam nga ko la defalul loolu du na subventionné du la jàppale ba tax na su ñu nekkee maire lépp luy convention bu baax mu nekk njëriñu jeunesse muy ay tey tey li Pape Gun góor gi ñoom def fële ñu euh, def naa moom euh, fële euh, terrain synthétique bi mm-hmm. Barthélémy Dias def ko mën naa am jële caare ko mais maire bay ko bloqué mm-hmm. donc blocage yooyu tey ji suñu nekkoon maire dañu permettre waxuma la minam mais day am ñetti mbaar day am fu bëri fu ñu jëlee caare kaw ci loo xam ne day permettre jeunesse bi ñu mën fu ñu entraîner am bërëb yoo xam ne dañ fay nekk ak ñi nga xam ne dañoo feebar te seen médecin ne nañuy yëngatu nañu nañuy def ay ay ay sport mhm. ñu am espace yoo xam ne ay espace piste yu rafet lay nekk mhm. même boo nekkee mag bi fu mën nañ yëngatu loolu amul jëlee caare kaw lu jëm ci alentour bassin bi dañ ko war a aménager boo fa demoon léegi nii da ngay gis mu am plus de cinq cent personnes yu ànd def sport mais foofu seetul poussière bi day jub mais tey dañ ko war a ko ba nga xam ne nit ñi fay ñëw duñ fay ñëw jëlee fa loraange dañu ñëw entraîner tàggat seen yaram dellu seen kër te duñu am benn feebar yu demee noonu donc suñu programme fànn boo jël dañu def restructuration des quartiers dañu daggaan mbedd yi tey jii am na convention bu ONAS am waa Ebasen mu programme yooyu maire di ko bloqué ba ci bassin bi nga xam ne tey gis nga ONAS di ko def war ko defar am maire lu ci mair war a defar gis nga situation bu nekkee suñu programme du leneen lu dul secteur boo mën a jël ñun duñu maire tey signé ñu convention waa service d'hygiène yóbbu nañ leen fa jën nañ produit pompé nañ jële caare ko yëpp pompé nañ bassin yi ci côté environnement ak yeneen ak yeneen ba ci sport subvention bi ASC di am mais fu mais ASC yi cent a jox jox ko benn yoon quatre ans jox leen ko ñun million par weer xam nañ xam nañu xaalis jële caare ko nu mu toll bu ñu defee recouvrement xam nañ ñaata lañu mën a am ASC bu ne war a mën am un million parce que boobaa du pour football rek day permettre nga jox imposer leen programme boo xam ne ASC mooy former xale yi former xale yu jigéen ñi ci loo xam ne ëllëg ASC bi dina leen mën a accompagner ci loo xam ne ëllëg lu ñu bëgg def bu ñu ko def. parce que dañu war a dépense fu ñëwee rek football après nawetaan jeex na ku nekk dellu non loolu amul sens. dañu war a accompagner la jeunesse ci loo xam ne bu football jotee ñu def ay convention DER parce que DER c'est l'état am convention ak FONGIP état la. fexe état bi ak mairie bi lëkkaloo mu nekk njëriñu waa Djiddah Thiaroye Kaw mais Cheikh Dieng position mu taxawee loolu moo rey Djiddah Thiaroye Kaw. mais monsieur Diallo dogu ma la encore une fois parce que peut-être temps bi ñu may moo bëriwul ci euh, émission bi euh, boo dee euh, yow sa programme li nga fas yéenee di lépp moom nga bëgg a réaliser Djiddah Thiaroye Kaw te ñu gis yeneen communauté yi bool bu ñu bu ñu avant ñu leen di fal daal ñu wax lu nekk ne lii dinañ ko def lee dinañ ko def lii dinañ ko def. madame je vous en prie may ma yeggali dinañ ko def.

at bu ne maa koy doy bay octobre naa la jox rendez-vous ñoo koy bayat 27 ans ñu koy def man maa koy fay par weer et pourtant mii rek ko war a fay demal école 21 demal école 12 dama leen laaj ci école ku leen fay par weer est ce que dama nekk maire est ce que dama leen ko amel su ma ko defal du ma ci am benn bàkkaar samay doom laa ko defal sama bopp laa ko defal samay mbokk laa ko defal mhm. bu ñu ut maire pour signature la bëri na ñu ut mairie lu ko am naa bu dee oto am naa ko bu dee kër fu mu dëkk maa ngi dëkk fu ma kër papa te ma fier ci. su ma amul milliard fii laay dëkk ndax fii la nekkoon ñu baax ñëpp di ko fekk dañ nekk ñoo xam ne ay doomu caare la ñu dañoo nekk ñoo xam ne politique bi dafa ñëw delloo ginnaaw dañoo ñëw pour fexe caare yi avancé dañoo ñëw pour indi beneen fase mm-hmm. ñëw ñu pour ne bu ngeen ñu falee ñu def lii déedéet ñun falu ñu ñu ngi def demal ci ASC yi nga laaj leen est-ce que chaque année malal mi ngi leen di subventionné te amee lu ma leen ko sama bopp laa ko defal samay frère laa ko defal samay doom laa ko defal demal ne leen est-ce que malal la ren mooy troisième édition bébé de l'année mosul am ci dëcc aare kaw 31 décembre dañu am ren mooy troisième édition damay def arbre de Noël mosul am ci dëcc aare kaw ci case Soubidi bi demal xool case Soubidi bi kan moo ko yore ñun ñoo ko yore mairie yoru ko ndox sax mairie du leen ko fayal courant du leen ko fayal du leen fayal gardien il faut que la presse di ngeen def sur le terrain di mën a xool li acteur politique di wax est-ce que dëgg la ak li nekk sur le terrain mais bu dee dag ma naan man su ma faloo li may digg man digguma ne damay def su ma falowul su may damay continuer def parce que fii lañ dëkk Cheikh Dieng Maristes la dëkk dëkku fi jabaram dëkku fi doom jàng man samay doom fii la ñuy jàngee man fi may liggéey su ma bindee kayit sama devoir mën am doom France mën na doom clinique yu mag yi wala principal mais poste santé santé yàlla bi ma jiite 10 ans mu mel ni mu war a mel dama bëgg yeneen jigéen ne jomuma dem fu jabaru maanaam dem loolu moo tax ñu wey ñu bëgg dëkk fi ñu dëkk doom gidda caa rek walay jàngee amul sama doom buy jàngee feneen

askan wi nañ ah yéen leen war a bokk impose dugg bu ngeen duggee yor signature bi li ngeen bëgg a def dafay yomb naa ambulance est-ce que maire la man maa warul ambulance mais moo war a jënd ambulance ana xaalis jënd saare ko man waruma jënd ambulance mais pourtant dama wut ambulance te maa ngi nekk di corvette naa ko am est-ce que man la war man nekkuma naan su ma falee naa jënd ambulance su ma falee déedéet dama def loolu yëpp faluwuma suñu ma falee xam lu may def mm. damay am ay convention kay partenaire

da nga sama sama lanc nga wax parce que marché yi boobu ñu waxante dëgg gis nañu commercant yi ñu dañ daj ci condition précaire ñu waxante dëgg ndox maa nga fa des fois ba léegi ndox yi ndox bu tawee marchand yi dañuy obligé seen i teg si kaw mu nekk salté boo xam te ji gis nañ ko si marché Thiaroye yow loolu vraiment en tant mën naa ne doomu même boo dëkkul sax yow daf lay métti yow loolu ban loolu ban jàng nga si marché yi bu ma koy wax

ay nit da nga koy jëriñoo parce dañoo toog ci instance yoo xam ne nekkuñ ci man fu sama jabar di yeewoo sama doom du fa yow naa fa joom ma def yeneen mm-hmm. boo tax na li ma si caare dund ñu si ñu si bëri ci ay maire intéressé wu leen politique moo leen ñu nekk maire après jeex na mais tey conseil ville de Pikine ne ñoo fa nekk intéressé wu leen bi ñëw ñu gérer li ñuy gérer orienté ku ne commune ni foram ci moo tabaxal ma benn euh, état civil ci moo tabaxal ma benn Euh, lycée à si Super ci moo tax mais en réalité fa fa ressource bi du lan lañ def à Thiaroye lan lañ def Djiddah Thiaroye Kao amul benn projet bu filtre bi ngeen def Djiddah Thiaroye Kao amul même moo bokkee ci Abdoulaye ci moo parti man sama parti bi jiitu mooy Thiaroye Yaar même le président Macky Sall su tegoon loo xam ne arrange wu Thiaroye damay taxaw ne lii ànduma ci arrange parce que loolu laa gëm tey jii Djiddah Thiaroye Kao muy Thiaroye Gare gisuñu loo xam ne dafa jógee Pikine dellu si ñoom lu ñuy jël suñu ressource di ko yóbbu ville de Pikine def lu leen neex c'est ça la vérité Tali Diallo mi ngi ne su amee problème ndox maire Thiaré lay xaar mu ngàccee jox ñu ñoom ngàcc Tali Diallo bu yéex nañ dem loué moto boobu 35000 francs dem def ko et pourtant warul a demee noonu la ville de Pikine dafa war a bàyyi xel waa Thiaroye bàyyi xel village traditionnel bi bàyyi xel ginnaaw raay ba tax na ëllëg luy seen jafe-jafe nga taxaw ci parce que lu ëpp ci li ville de Pikine am mi ngi ci marché Thiaroye bi et c'est ça la vérité mm-hmm. donc loolu vraiment ay affaire la yoo xam ne c'est politique gën na sori ni ñu ko xalaate mais tey man de man malal su ma nekkee maire ji de caare kaw suñu ay ressources bala muy dem feneen non boobaa dañoo war waa caaroy war waa ji de caare kaw bàyyi seen al ressources dem ci yeneen gox goxaan di fa defaru mhm. merci beaucoup monsieur Diallo xam naa temps bi euh, li si des 10 euh, minutes la bëreetul euh, mais nag monsieur Diallo nga nekk maire ñu fal la ak ñu ñàkk laa fal

bëgg koo waxtaan ak téléspectateurs yi nga xam dañuy suivre Pikine TV te man posé wu ma la question bi lan la autre chose tamit lan nga xool ne tey ji ay manquement la yoo xam ne tey ji war na am judda caaray kaw ak loo xam ne war na am Pikine te amu fii ngeen bëgg président Macky Sall appuyer leen jàppale leen si lan la président Macky Sall ci ay diggéen mhm. ñaar kese moo des Pikine ñaar kese bu jeexee ñu utaat yeneen beneen beneen mémorandum jox ko mooy la route de dem ba Kër Masar priorité la ci ay diggéem beneen bi mooy district yi nga xam ne fu mel ni Dominique mm-hmm. ak syndicat yooyu mooy ay diggé faar yu mu defoon di wax ne ay priorité la mm-hmm. su ko weesoo lu ci bëri mairie yi ñoo ko war a def état mairie démembrement état la tey duñ ne état yokk la ay bus déedéet dañu fexe kay fi bus di jaar mëna yag ak seen organe moy tëgg yu baax ba bo ne nit ki da ngay jom caara yi mun la fayal 2000 parce que dina fekk tëli yu baax na fekk sécurité bu doy mais tey taxi bo ne caara yi mun la 5000 7000 taxi bo ne Pikine mun la 8000 parce que mu la parce que amuñu ay tëli yu baax parce que guddi yi aussi amul sécurité dafa dess té lolu mbirum du état mbirum mairie la ba tax na du ay programme lañu falé fale nit gis nga monde sénégalais yi voté massivement référendum bi lolo indi souffrance universelle directe faluñu liste ñu liste bi gagné quartier yi après ñu tànn maire déedéet loolu weesu yow mi bu le président Macky Sall tan coalition bi tan ñep ne sa ginaaw nga dem ci askan ñu ni way nday man nday duñ ko falé xaadi mi nga xam auto moy mooy ambulance quartier bi dañu fal xaadi mi nga xam ne fii keur gor kër góor gi njaay nañu fal fa lañ tollu parce que naxate mo beuri ci politique ba askan bi ñu nang ku len nax ba taxna vraiment leneen li mooy tey Pikine TV yéen a def lu am solo am leen sponsor yi tey ñaata maire ñoo war a nekk seen sponsor. ñaata entreprise ñoo war a nekk seen sponsor. waxaata si parce que fa ñu def seen xaalis du foofu. Mhm. boo bindee taane beer ñu ne ko boo bindee ay cant ñu parrainé ko mhm. et pourtant ay acteurs ñuy def ay formation di dajale ay xale leen former duñ leen jàppale lan moo gën loolu est-ce que cant yi ñu def ak daara yi ñu def. lu baax la de ndax suñu ndono la te mooy defar nit ñi waaye nañ bàyyi xel ñi nga xam ne dañu former xale yi leen jàppale leen jàngal ngir ëllëg ñu mën a yor seen bopp yor seen njaboot mhm. c'est très important te tey loolu Pikine TV da ci bokk ñaata xale ñoo fi jaar ñaata xale dañu former sérigraphie yeneen affaire donc yooyu dañ war a mën a bàyyi xel Pikine nañu xam ne ressource bi ñu am nañ ko téye mooy am nañu ressource jeunesse loolu mooy suñu pétrole loolu mooy suñu gaz xale yooyu ñu am di dee géej gi di leen feneen feneen loolu mooy suñu lépp bu ñëwee di jaay pétrole gaz ñun nañ jooy suñu xale yi fexe lu ñu leen téye former leen dimbal leen ba ëllëg ñu mën a nekk ñoo xam ne nañ mën a dimbali seen bopp dimbali seen waajur ba tax na vraiment man kàddu boobu laay daanelee mm-hmm. di la remercier aussi ci émission bi di ñaan yàlla aussi yàlla màggal télé bi ñu ñëw fii di leen fekk def ak yéen yeneen émission yi gën a neex mais lu ci dëgg ngeen xam ne ci ñun la mm-hmm. lu ci jub suñu borom la lu ñu bëgg rek mooy Pikine am développement mm-hmm. Pikine décollé comme ni ko Youssou Seck di waxee mu boo xam ne Pikine bu émergent nekk dëkk boo xam ne fu ku am gan sax danga naan naa la yóbbu Pikine ko am gan danga naa la yóbbu Thiaroye naa la yóbbu Malika parce que ñun loolu mooy suñu sac loolu mooy Pikine mooy suñu symbole Thiaroye mooy suñu Paris jëlee Thiaroye kaw mooy suñu New York fii lañu am fii lañu tiitaroo gan bu ñu am fii lañ yóbbu lu ñu xewle fii lañ koy defee fii lañu yeewoo bokk ñoog suñu maire yi nga xam ne ay maire importé lañ te dafay jeex ci élection yi képp koo xam ne da bëgg a nekk maire fa nga tabax sa kër fa nga def sa sa njaboot na nga fa dem ut fa mairie te nga xam ne nga bàyyi suñu dëkk bi nga xam ne boo jàppoon dëkk bu baax la boo jàppoon dëkk bu yell boo jàppoon dëkk bu am avenir la fii ngay investir sa kër fii ngay indi sa njaboot mais loolu pour man naxaate la gëmuma loolu fu man li nga gëm ba def fa sa koppar def fa sa njaboot na nga fa dem xëccoo fa mairie en tout cas je vous remercie di remercier aussi yëpp yi nekk Pikine TV di remercier ambassadeur Youssef ak Merci beaucoup. Vraiment, ça a été un plaisir euh, vraiment de partager ce plateau avec ce grand monsieur euh, Malal Diallo. Nek euh, euh, conseil euh, municipal commune de Djidé Thiaroye Je moom recevoir ce plateau bi link up c'est le numéro number one ànd ak Khadim vraiment gis nañ liggéeyam tam bu andal professionnalisme Je nga xam ne mu ngi koy chaque phase liggéey bi duma tay diko wax diko ñaanal rek la total di gërëm bu baax baax parce que dañu ne peccum liir bu neexee ndé yaa japp sa mbag ya buñ démé ba am opportunité bu nga xamni tok ci plateau bi di présenter émission mun nañu wax ne Youssou Seck mo ñu may euh, mo ñu may opportunité bobu kon nak euh, PDG ñu ngi lay ñaanal la total di lay ñaanal euh, fa nga nekk ak sa njaboot yalla na yalla sàmm yalla na yalla def sutura ci mun naa wax ci département bu Pikine ak Sénégal wér-ngél képp quant à moi je vous donne rendez-vous prochainement même heure euh, même fréquence euh, même même même site euh, xam nga même fréquence Comme si merci beaucoup peace and love